Macky Sall tolloog euh, Ousmane Sonko il faut voir le niveau d'agression d'ailleurs wax nga ko léegi sa biir wax parce que <laughs> sa première euh, prise de parole am na noo waxee que ni daanaka yéenay challenge euh, bu président Macky Sall yéen daal vous vous êtes positionné comme le principal adversaire du président Macky Sall il a beaucoup d'adversaires mais on croit mhm. humblement <coughs> que nous sommes la première force mhm. d'opposition ou la première force politique Sénégal foo leen ko jëlee élection présidentielle yi passé c'est que d'abord lu ñuy def yëpp hmm. amul lenn loo xamante ne tey dañ ciy génne suñu xaalis hmm. ñun ñooy wax ne dañu soxla militants yi jóg di andi kon mais Bassirou boo ko seetee ba seet nag y un avant et après affaire Adji Sarr Ousmane Sonko hmm. sur quel plan parce que avant affaire Adji Sarr Ousmane Sonko seen candidat bokk na ci élection présidentielle am plus de quinze pour cent muy score bu jara ndamoo mhm. surtout nag koo xam ne mi ngi doon bokk pour la première fois ci élection présidentielle ñu dox diir ngeen lancé benn concept boo xam ni mhm. dafa ñëw def impression mhm. muy les vacances agricoles patriotiques concept bu dee waar am succès ñu dox diir ngeen lancé levée de fonds pour def seen nemmeeku tour sénégalais yi ñu nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew fekk si leen ci mu am succès bu rëy benn journée rek ngeen am ci cent vingt cinq millions loolu mooy avant l'affaire aji Sarr mais après l'affaire Adji Sarr d'abord un nemmeeku nañ ñi nemmeeku tour gi na mu tàmbali woon ba takkar naase am na lu ci wàññeeku ñaareel bi seen njiit fi mu ne yoon tënk na ko parce que ni ko tënk mooy jox ko contrôle judiciaire li ci mujj mooy Togo bi mu naroon dem barki dem moo njaay mujj ñu ko jox autorisation pour mu dem génn ngeen itam ci coalition jot na donc nangul ni quand même am na avant mais après Adji Sarr ci taxawinu Pastef Pastef avant avant affaire bii nii Pastef était déjà un parti très fort après affaire bii nii Pastef est devenu plus fort ah, qu'avant ah, ah bon non ça il faut descendre sur le terrain pour xam ko d'abord nañu xool ban leader lañ mos a attaqué askan gi jóge nii défendre ko au prix de leur vie de de de de de de mutilation mosul am ci li ma fàttaliku ci histoire politique gu Sénégal ak a neexoon mu amoon ci bu ñu doon bunt xataal Cheikh Anta Diop wala Mamadou Dia askan wi taxaw woon nii kon xëy na lu ñuy xeex ni duñ ko doon xeex mais askan wi loolu la comprendre ba taxaw taxawaay goo xamante ne du woon mosa a seetaan loolu xew gis nga askan bi def loolu. deful loolu ba pare pour du dumóoyu ki nga xamante ne moom moo ko jaral mu def loolu parce que bu mu koy def ñun lu ñu doon xayma Pastef sax nattuñu ko woon mu tollu noonu mhm. li ci des mooy dem rek pour jaale ci mbe ci ci ci ci dëj yu bees yi fu mu dem y compris ci kër yi nga xamante ne fa la dëj ga am dañuy génn di ko di ko teertu comme koo xamante ne dafa tukki woon bu yàgg ñëwul kon kooku noonu dafa gën a dugg ci xolu Sénégalais yi te boo génnee dugg dans le Sénégal le plus reculé ci ngay gis ay nit yoo xamante ne yaakaaroo woon na sax que le projet Pastef am na fu mu leen toll ñu ne la affaire bi li ma ci jooy wala affaire bii dama doon yeewu xaaju guddi di ci di ci ci ñaan wala affaire bi mënatuma woon lekk mënatuma woon naan c'est vrai que kenn yéenewul quand même euh, j'arrive mbokk jullit yooyu daal def ko mais amoo leen dara loo leen reprocher le président Ousmane Sonko dans cette affaire là j'arrive d'abord il faut ma jeexal question parce que mhm. c'est important mhm. pour mu xam ne que ñun le parti est aujourd'hui beaucoup plus fort gis nga activité de massification yi ñuy def nii avant la l'affaire Adji Sarr tolluwuñu woon nii te lii nu muy xewee tey biir Sénégal ay installation cellule par par par euh, par par week-end kenn xamul nu mu toll et c'est su partout là il faut voir ñun ñi xam ne chance bu ñu am mooy dañu dañu dañu tiim activité parti bi notamment bokk ay groupe ak coordonnateurs yi mm-hmm. nga xamante ne ku def activité da nga koy wane ne que def na activité tel tel tel les cellules poussent partout au Sénégal comme des champignons c'est indescriptible comme ni ma wax tout le temps yenn yi il faut nga nekk ci biir Pastef pour mën ko gis. bi ci tegu nag mooy euh, nemmeeku tuur bi. mais dañu doon waaj dem ne moo ci nit ñi mais nit ñi ñoo doon ñëw di ñu nemmeeku si ci affaire boobu. parce que ci diggante bi li ñëw kër président ko pour ndokkeel ko ma masawu ko kenn xamul nu mu toll ñu doon woote ils nous ont plus d'envergure sur le sur le plan national et sur le plan international parce que dañu toog jékki-jékki àdduna gi yëpp puisque ñu ngi doon gis Sénégal luñ mës a gis ndax président de la république boo xamante ne mosul nangu opposition bu am doole ci kanam liquider Karim Sall Karim Wade liquider Khalifa Sall ne Ousmane Sonko da nga koy ba mu andi problème àdduna yëpp braqué leen braqué ñu suñu projecteur nga commencé gis en une semaine New York Times CNN BBC euh, xaw ma Bild lañ koy xaw ma les grands tous les grands médias du monde braquaient leur projecteur sur le Sénégal. Hmm. loolu dafa gën a ful dimension leader bi. sur le plan international on peut moo tenir tête au si on compare wax nga ko léegi Khalifa Sall li ko dal coow jibul euh, Karim Wade peut-être coow jibul léegi mën nañoo wax ni Pastef a tenu tête au président Macky Sall ba reculer la ko. non ba mu jël ay décisions finalement. non non dañ ko waxee noonu. Hmm. c'est le peuple sénégalais. Ah. moom lañ taal xelam ba mu leer. mu comprendre que dafa war a défendre projet bi défendre leader bu ko incarné nanguwul bàyyi ñu lekkee ko noonu nu ñu lekkee ñeneen ñi. waa est-ce que du itam dañu teg sénégalais yi lu ñu àttanul surtout bi ñuy xeex mbas mi tere nit ñi liggéey. Covid bi waaw imposer leen couvre-feu nit ñi seen mbir doxatul ñenn ñi ñàkk seen place. Hmm. est-ce que du loolu yëpp tombeek li ñu naan tombeek moo waral ay gaaf tombeek affaire Ousmane Sonko bi. moo waral nit ñi génne noonu. est-ce que waaye xëy na du liggéey bool def ñoom ba nga xam ni fi mu ne dañu taxaw ñoom barricade wu pour Ousmane Sonko Ousmane Sonko sax wax na ni. bir na ko ni moom ñi génn ñëpp ñëpp ñëpp du jëmmam moo tax ñu génn. oui mais am na ñu génn ngir jëmmam. Ah, ah. am na ñu génn ngir défendre démocratie. mais am na ñu génn itam parce que jamono jooju mënatuñu woon dëkku li ñu leen teg ci mbas mi. mais ba léegi rek tout revient à la même parce que déclencheur aussi. lu muy de lu ko il faut mu am doole pour mën a déclencher lu muy déclencher donc loolu mënoo ko toujours déconnecter avec la carrure et la dimension du projet de Pastef et l'incarnation qu'en fait parfaitement le leader de Pastef mënul nekk gis nga bi ñu bi ko libéré est-ce que le lendemain ba nit ñi bàyyi manifestation mu ne en un grand homme d'État nañu ko bu kenn dem ne na ko na génn pale les gens loolu lañ bëggoon mu ne bu kenn dem ne na na gën dem benn yoon parce que doyal nañ ci nañ ko bàyyi c'est un président légitime ñu accompagner ko encadrer ko ba mu dem ci jàmm. ah mais est-ce que loolu méngoo nag deuxième vague bi mu annoncé. non deuxième vague parce que bu nee président Macky sal donc à la limite man na ni beneen bu ñëwaatee mën na gën a metti. loolu jarul sax ñu koy annoncé. tey suñu deuxième vague c'est la massification l'implantation ah, d'accord c'est pas la violence dans loolu mooy suñu deuxième vague. d'accord mais nag président boo xamante ne rëcce nga ci lii. Uh-huh. te defuloo lecture bi nga war a def ba defaat erreur yu mën a tax sa askan décès de leur faire face amul président de la république bu mën a taxaw jàmmarloog askanam Ben Ali doyoon na ci jàngat Hosni Moubarak doyoon na ci jàngat Kadhafi sax xëy na mën nañu wax ne am na ñeneen ñu si dugg waaye benn instant askanam xëy na bu ci jàppoon loolu du am amul leader boo xamante ne mën nga jàmmarloog sa askan bu fekkee ne décidé na que yow li nga bëgg a def nii du dox. mais Bassirou am na ma jeexal ci lii. Mhm. loolu bu loolu leader bu ko comprendre ba ñu la koy annoncé. Mhm. c'est parce que véritablement aduna jàngalu la dara. Euh, gis nga ñi nga xamante ne dafa wax dafa génn. Mhm. ñu arrêté bàyyi bàyyi wàcc ci mbedd mi le lendemain ils n'ont pas récupéré leur pour ñu ko amul woon. te dafa am loo xamante ne événement yoo xamante ne dañuy échappé nit ñi dañuy jël le cas des étudiants le dimanche 7 mars veille de la libération xam nga ci lañ wax ne levé nañu garde à vue dans l' affaire du trouble de trouble à l'ordre public oui. il faut voir les scènes de lies à l'université nga yaakaar ne dañu leen joxoon ay ticket restaurant wala nga yakaar ne dañu admis woon examen non parce que dafa am lu ñu doon xeex ki était lié en un homme qui était injustement détenu d dafa yàgg Sénégal sénégalais Mm. defuñu ci attention peut-être mais est que xam ngeen ne Sénégal bi dem nañu ba bu nit demee déposer demande de marche régime déclaratif constitution wax na ba ngay déclarer doo autorisation boo génnee buntu commissariat central nga dox quelques mètres fourgon police jël la dugal la def nañ ko Guy Marius Sagna ba tey def nañ ko suñuy militants yoo xamante ne dañuy déposé demande de marche déclaration de marche génn ñu jàpp leen trois personnes ñu leen rassemblement trouble à l'ordre foofu la ñu yemoon ci démocratie te liberté yooyu sénégalais yi am xa xaaruñu dumuyoo ko renoncer ko avec autant lutte parce que juste qu'on a un apprenti despote ki yaakaar ne que mën na gouverner dëkk bi par la dictature loolu sénégalais duñ ko may. mais ba yaakaaroon ni Macky Sall nag ci diggante bi daanaka bu fekkee jamono yi defoon na trois appuis ba nga xam ne opposition bi nekkoon na ci dynamique boo xam ni c'est positive. sigiwaat yaakaaroon ni que sigiwaat na. sigiwaat na yaakaaroon ni que il est en d'inverser le rapport des forces. d'autant plus que votre leader est toujours sous contrôle judiciaire. oui mais contrôle judiciaire bi xam lan la koy contrôle judiciaire. mi a génn te mënul génn ñu ngi ko tëj Sénégal. non loolu loolu c'est vrai que c'est inacceptable mënul continuer mais terewu ko mu tey mu jóge fii dem def un mois biir Tambacounda di def soo nemmeeku tour nemmeeku tour bu amee lu ñu fa mën a téye mooy ñu commencé utiliser suñu xaalis c'est vrai que avec assistance bu ñu defal prisonniers parce que ñu nekkoon kaso yépp. ci période bi ñu fa nekkee ñun ñoo leen doon jox ñu lekk jox leen ñu naan ñu jox leen ay per jëm pour cas yi nga xamante ne mënatuñu woon accéder. ba ñu génn ñenn ñi sax bàyyi ay njaboot yoo xamante ne seen situation dafa difficile dañ fa doon dem. lu ñu jël ci prise en charge médical bu te bu matul 70 millions. boo jëlee lépp lépp loo xamante ne ci lañu la ñu crise bi yóbbul ah jege na ko am na lu ñu dese organiser ci une manifestation du M2D pour rendre hommage aux cérémonie commémoration nationale mooy bi amoon Bignona mu yóbbuwaat xaalis ñu ngi waajal dem nemmeeku tour bu jeexee dinañ defal ñëpp le bilan ne leen fii lañ toll ci li nga xamante ne moom la ngeen ñu joxoon mais bu ñu amee les moyens yu ñuy ut yu ñu permettre ñu nekk Sénégal de circuler ba 2024 génn gi mën na ñàkk donte nag lii nii du loo xamante ne moom la régime gañ gañewu ci dara parce que procès baa ngi fi procès bi c'est pas compliqué mm-hmm. mooy accusation am na déglu nga accusatrice bi mm-hmm. déglu nga l'accusé déglu nga témoins yi ba placé leen sous contrôle judiciaire mhm. lan moo des organiser le procès le procès mu jeex léegi léegi léegi xam nga dëgg la bàyyi ngeen xel élection locale yi mhm. bàyyi ngeen xel itam élection législative yi mais élection yi ngeen gën a bàyyi xel mooy 2024 te dafa mel ni yoon fi mu ne tënkagum na Ousmane Sonko mhm. te mu am précédent nag bu ni mel mbiru Karim Wade ba mu amee nit ñi di Karim Wade de mënut a doon candidat élection 2019 PDS mooy fi ñu goy rek ne amuñu plan A amuñu plan B mooy suñu plan benn plan la ñu am muy Karim Wade yéen est-ce que jotul itam ngeen xalaat plan B. parce que sooru Ousmane Sonko ak ambition présidentielle. mbir mii nga xam ne ñu ko koy topp ci yoon te kenn xamul parce que. fan lay mujjee fan lay mujjee ak kañ lañ koy atte est-ce que loolu mun ko tënk. non lii mënu ko tënk parce que. xalaatu leen itam plan plan B. benn plan ngeen am Ousmane Sonko. bu yàlla de def jàmm mooy doon seen candidat. gis nga il faut que ma wax sénégalais yi tey. Mhm. ci yan condition lañ jëlee président Ousmane ko teg ko ci Pastef. Mhm. dafa am ñoo xam te ne dañu toog nataat seen bopp ci añ. Mhm. ni ñun fii la ñu nekk rek critiquer nag est-ce que jotul nag ñun tamit. parce que lii dafa yomb ñu créer tamit parti politique bu ñu bëggee mbir yi changé. parce que mm-hmm. toog lekk lekk sa suppa kànja gu neex. di naan sa caañ di wax loolu dafa ko yore waxul ak yooyu. fa la Pastef wala fala la idée wu Pastef commencé juddu. Mm-hmm. donte ñu ci bari ci ñoom balaa ñuy sori génn nañ ci ba set wicc. mais ñooñ noonu ñoo demoon woowee ji ko ne ko yow am na loo xam te ne ñu ngi koy jëmal yow yaa ñu ci doy parce fekk na. mu def ses armes dans le syndicalisme nekk première personne boo xamante ne moo créé un syndicat dans l' centrale. par la suite nga gis yeneen syndicats yi ngay dégg yëpp dans l' administration centrale sinon il n'y en avait pas. c'est vrai de face à une adversité à une pression énorme nekkoon un fonctionnaire fragile jeune parce que trois ans rek la defoon wala quatre ans maximum avant muy jublu ci création syndicat. lu mu ca jot doxal ci nu mu setee lu mu ci jot a doxal ci fit ak ci gis-gis fu mu jot a yóbbul administration ba ñu toll fu ñu toll tey positionnement stratégique administration fiscale boo ko déggee foofu la déparé parce que de tout le temps ñi doon nekk ministère de l'économie et des finances trésor la ñu doon jóg budget jóge trésor tous les directeurs nekk trésor mhm. mais par la suite ñi ngeen gis tamit ci la Amadou Ba ñëw ci la Abdoulaye Daouda Diallo ñëw ci ngeen gis yeneen cadre impôt domaine commencé di fa dem beneen type syndicalisme la andi syndicalisme boo xam day dem ci assise nationale syndicalisme boo xam de le warul nekk en syndicalisme alimentaire loolu moo doyoon ñooñu ba ñu ñëw jël si ko man j'ai eu l'insigne honneur bind la feuille de route di comité de pilotage provisoire mhm. maanaam ne ko ñun ñu ngi weet ci salle bii mhm. motuñu sax quarante personnes di defar en parti politique kenn xamuñu bët bu mu man tey bu ma génnoon créer parti politique suba nu mu tuuti tuuti benn journal dañu ci wax mais maa ngi fa woon biram Souleye nga fa woon Ousmane Sonko nga fa woon ñeneen ak ñeneen nga presse waxu ci du rajo du journal mhm. du télévision amuñu woon sax présence d'esprit def live Facebook pour te dire mhm. pour vous dire donc ci anonymat total ak cent moyen lañ ne parti euh, Ousmane Sonko parti bi di Pastef ñuy sos fii tey mhm. dañu bëgg nga imposer ko avant 2019 ba mu nekk une réalité politique maanaam en cinq ans ne dañu bëgg Sénégalais yi bañ a wax ne que c'est en parti de plus mais nga imposer ko comme un parti réputé sérieux et différent mais mënoo am quelqu'un ba pare nag dans le chapitre avec quelles ressources j'avais mis des points d'interrogation <laughs> parce que dama noon au titre des objectifs j'ai mis beaucoup de milliards sont dans les comptes du parti mhm. les moyens ma dañ leen wax dëgg yàlla xaw ma naka la ñuy def ba am ay milliards waaye dinañ soxla xaalis parce que politique dafa ànd ak xaalis mhm. waa ji tey parti bi par ingéniosité audace vision ak combativité ñu jàpp ci sénégalais di di ñëw di ñëw di ñëw di ñëw ba Pastef nekk tey ci sama gëm-gëm yàqin ne la première force politique du Sénégal mhm. indi innovation yaa ko doon cité sànq vacances patriotiques euh, agricole euh, patriotique don de sang leader bi dem joxe deretam ñu def ay activité don de sang tout le temps def nemmee def def def euh, appel à contribution de fonds mu def bind un livre vision nga xamante ne depuis Mamadou Dia presque amatul présenté ko devant un challenge des challengers chevronnés en direct à la télé innovation yëpp ñu andi ba Pastef toll fu ñu toll tey bi ñi nga xamante ne jàpp nañ ne que ça représente la principal menace à leur pérennité au pouvoir bëgg ko daaneel ñuy ñuy xalaat plan B xalaatuñu plan xalaatuñu plan A prime déglu non xaaral ma jeexal fii xalaatuñu plan B xalaatuñu plan A prime <laughs> Ousmane Sonko reste notre seul et unique candidat bu fekkee ne euh, le parti investir na ko en perspective 2024 mais c'est pas affaire bii nii mooy tere Ousmane Sonko mën a président parce que le complot est trop nul euh, et de fil blanc pour empêcher la candidature du président mais il est vrai li nga wax nii bu ñuy tracel quand même euh, bilan ah 2014 ak léegi le président Ousmane Sonko ak Pastef maanaam évolution am na ci parce que ñi leen doon woowee aussi parti réseaux sociaux gis nañu ni fi ñu jógee nekkatul parti réseaux sociaux ah <laughs> mais euh, je veux dire mais ñàkkul yéen kàngamu parti bi jaar-jaar nag day am ay rëkk-rëkk mhm. ñàkkul am na lool leen reproché le président Ousmane sonk ngeen ne lii bu ñu ko doon defaat kat dootu ko defaat mais dina gën a moytu parce que d'autant plus que da ngeen a jàkkaarloog ñoo xam ne ñu ngi def lépp pour fexeel leen lenn rek benn reproche moo am waaw mooy bi ñuy def au au parti. pas après pas pas au président Sonko. président sax bu amoon reproche boo xamante ne dafa na rem ci moom man may maa koy tegu. Mhm. pourquoi parce que am na loo xamante ne dina ma ko wax. mais damay xam nekkul loo xamante ne dina ko wax n'importe qui ma teelu ko ko. mais bu doon tey la lu ma doon wax ma xam ne yenn jafe-jafe yi am na kon dinaa ko doon génn wax ji kon bu reproche amee man. le fait que mu téye ko waxu ko kenn. loolu peut-être de bokk na ci li nga xam ni wax na ma ko mhm. j'aurais pu le dire wala ñu forcer ci benn kii beneen bi mooy reproche bi nga xamante ne tey euh, parti bi la ci ñu koy euh, parti bi moo war a gën a organiser wu parce que boo amee un candidat aussi précieux que que que lu ñu am suñu responsabilité la ñu aar ko ñag ko protéger ko ba du am jafe-jafe ju mën a tax mhm. muy xal muy am sax souci waxuma la sax mu muy am des prestation basiques de quelque nature que ce mais muy am souci sax ñun kii nii dañ ko war a bàyyi rek chaque jour bu noppaloo ñu ne ko sa yaram ça va mu ne waaw ñu ne ko demal telle destination ne ko yemal fii toogal fii am na ñoo xamante ne tey dañuy wax ne jaratul muy wax na toog ba 2024 parce que leer na mais ñun dañu bëgg mu nekk koo xamante ne day dem à l'écoute des masses xam sénégal yi lan mooy seen jafe-jafe lan mooy fi ñu koy xaar loolu di ñëw di ñëwaat ci moom muy saafonteeg ñoom nekk un leader prédicteur loo ci mu nekk culte de la personnalité te bu boobaa euh, anti système bi ngeen di woote dañuy jàpp ni njëkkewu leen ko seen parti maanaam seen parti ni mu tëddee mooy comme yeneen parti rek nga xam ne benn njiit. le culte mooy buur di bumi. non moom la ñu jiital ca kaw. non non bañ nañ ko ba jamono yi ñu toll. doo dégg sax ku ni les pastéfiens Sonko lee ngay dégg c'est-à-dire turu Ousmane Sonko dem na ba léeg-léeg sax dafay mudd parti bi te loolu nag. daanaka mooy boo leen jëmee ci loolu te saxal ko jàngoro gi nekk ci yeneen parti mooy dal seen parti non amul dara lu ko utale non non non non non ñun ñun dañu war dañuy jël Pastef par exemple on fait on fait presque six cent cadres tey te nit ñaa ngi inscrire ba tey cotisation mensuelle cadre bu fekkee ne cadre yëpp respecté nañ seen cotisation chaque mois war nañ mën a dég dix mille la war nañ mën a dégager cinq millions minimum bu fekkee ne cadre yëpp respecté nañ seen cotisation dix mille yooyu ñun suñu responsabilité la tey que ñu xool est-ce que président Ousmane Sonko bëgg na dem fenn ñu xam ne la parti projet la porté parce que su may cotiser c'est pas pour ñu noosi ji wala ñu defee séminaire lu dul na dañu war a réfléchir sur le programme li ci des c'est un candidat qu'on a préparé qu'on a encadré avec xam-xamam ak fitam ba mu nekk lu mu doon tey nangul mbaaxu jàmbur du la tere baax mhm. jeune dépassé mu loolu gis nga boo ko dégloo souvent mu ne la ñu bëri dañuy jaakaar ne que dama jegante ak Diomaye mhm. mais voilà quelqu'un koo xamante ne on est jamais d'accord mhm. pourquoi on est jamais d'accord parce que bu ma amee vision wala sensibilité boo xamante ne dafa wuute ak sam dinaa ko ne man lii nii laa ko gisee nii laa ko gisee su ma d'accord naa ko wax lii d'accord ma ci lii d'accord ma ci mais bu ñu tënkee délibéré ba opinion majoritaire bi féete ak moom mhm. ñaar laa ko euh, laa ko amel amel ko parti bi mooy loyauté ak engagement parce que mënuma dem jàpp ne dama am la science infuse ba bu ma d'accordul moom parti bi jaar ni man ma jaar na le loolu du discipline de parti leneen li ci tegu moy culte de la personnalité mënul am récemment le numéro 2 le frère Birame Souleye Diop dem na ci benn scène wax euh, divergence am par rapport au président Ousmane Sonko bi ma ci waxtaanee ak moom mu ne mais je comprends pas dans un parti comme PASTEF ñuy woote rupture mmh. comment peut-on ne pas am opinion divergente avec le avec le chef de parti wax ko dafa ne loolu dafa war a naturel ci biir Pastef te moom ci boppam uh-huh. boo ko dégloo tamit da koy wax régulièrement lañ koy mettre en minorité xam nga kañ la dem tournée <laughs> dafa jóge bi xam nga fa la amee woon malaise ndax coono ak leneen ci guddi gi noonu leneen gi mooy dafa dafa doon bind discours ñu déggante ci guddi gi ma ne ko yow sax mën nga bañ a discours nga et cetera mu continuer bind ba trois heures du matin yeewu cinq heures du matin. jël vol dem jël vol dem. continuer noonu ak temps d'exposition bi au niveau au soleil mm. donc loolu. Euh, c'est normal à la limite. Mm. mais bu mu fa jógee. Mm. man 22 heures la ma bind message. ne ma programme du président Ousmane Sonko. 26 mars 10 heures intervention états généraux de Lomé. 26 mars toujours le mercredi à 16 heures. Euh, présentation du mémorandum du M2D. Samedi, euh, samedi, samedi 29, mm -hmm. samedi 29 mai, mm -hmm. au dimanche 17 juin, tournée politique du président Ousmane Sonko. ah mooy nemmeeku tour bi la bëggoon na commencé. le même jour la bind programme boobu ne samedi bi ci topp. day dem day dem nemmeeku tour. ngeen ne ko ne ko mais man ñëw naa sa kër sànq mais dama fekk ngay nelaw mu ne ma a ah bon je m'étais assoupi mais bu xam naa ne suba on en reparle. ma ne ko d' accord bët set ma ma yow nga ne da dem <laughs> nemee ko tour mu ne ma waaw parce que il est temps ma ne ko yow benn patriote du la nga dem nemee ko donc parti bi moo ko imposé ne du génn Dakar ba fa ñu toll nii demul mënuñu di am influence bu toll noonu ci mm. moom yenn saa yi mu jël décision ñu mettre ko en minorité mm. yenn saa yi mu bëgg def benn affaire ñun ñu tere ko ko mm. ba pare ñuy cultiver le de la personne mais yéen ñi ànd ak moom on est mal on n'est nga fi numéro 2 Diomaye am na sax ñu lay considérer de fait le numéro 2. non non non loolu dañuy dañoo bëgg a jaxase loolu amul. loolu mën nga leeral les patriotes. est-ce que di ngeen dem le la. depuis la création du parti politique. mais comme congrès tegu leen fa yéen ñëpp congrès tegu leen fa est-ce que comme da ngeen a nekk ci changement xalaat ngeen def congrès par rapport quand même aux échéances futures. oui ñun ah, bu ñu jógee ci élection législative présidentielle 2019. Mhm. juillet lañ naroon def congrès. ba mettre en place les commissions finance organisation commission scientifique bi ma ne leen ah congrès xaalis la laaj surtout boo bëggee def un congrès boo xamante ne dafa ànd ak démonstration de force ñu waxtaan ci j'ai été aussi mis en minorité j'ai accepté de travailler dans la perspective du congrès mais li mu la doon wax mooy nit ñi lu ñu mënoon jox yëpp ci xaalis ane boobu boo moytul jox nañu ko ci diggante janvier ak février élection bi hmm. mais ils le faire que challenge yooyu aussi dañ ko yàgg def Pastef relever ko hmm. ñu dem ba ci biir ñu rendre compte qu'on ne pouvait pas faire avec l'évaluation bi commission finance andi woon ak ni ñu bëgg woon andee nit ñi ci communes yi mënuñu woon def hébergement beeg yu demee noonu par rapport au congrès ñu différé ko ba date bi nga xamante ne dinañ gën a jekku tey am nañu des statuts nouveau wala boog ñu ngi liggéey ci ay statuts yu bees mu ay organisation yoo xamante ni ñëw seey si ci biir Pastef le congrès devient un congrès de fusion Ah. boo xamante ne dañ koy def benn congrès mu nekk une nouvelle formation politique à la limite parce ah. que li tudd woon Pastef day tudd gaa Pastef bu fekkee ne les statuts son validés parce que ils sont en significations changent oui ils sont en observation auprès des des des des des des patriotes notamment diaspora bi auprès des coordonnateurs départementaux je crois que transmettre nañu leen ko en tout cas dans la diaspora boo xamante ne j'en suis le responsable jot nañu ko normalement week-end bi sax mënu mu demee ñu def la synthèse des des des observations day jóge ci patriote du Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité bu fekkee ne validé nañ ko dem ci patriote africain du Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité donc l'acronyme PASTEF dara du ci changé mhm. Mhm. donc segam nag am na ay organisation yoo xamante ne ñëw nañ say si ci biir PASTEF ça devient une nouvelle dimension de mhm. parti politique moo tax suma ma la nee tey la gën am doole gën am ancrage mais congrès de fusion boobu gën a am massification euh, Diomaye congrès de fusion boobu waaw ah. Euh, est-ce que mën na wundu ay changement euh, dans l'organisation du parti ak poste ak dans l'organigramme à l'organigramme du parti yu mag a mag a mag ah ah yu mag mag a parce que euh, benn leitmotiv moo moo waral loolu. Hmm. dañu toll woon foo xamante ne ay nit ñu ñu yàgg a àndal hmm. dem nañ ba gis ne au lieu ñuy continuer béro ak seen projet am na projet bu correspondre ak seen projet. bu ñu mën dooleel pour gën a rapidement. Euh, li nga xamante ne moom la ñuy dàq depuis des décennies ñu fas yéene ñëw dugg ci biir Pastef ñu ne Pastef dafa war a def euh, une ouverture à un double niveau mm-hmm. Pastef dafa war a ubbeeku aux autres ressources internes du parti parce que mm-hmm. ci diggante bi on a accueilli quand de la ressource humaine de qualité ci biir pastif parti bu demee ba am ay près de six cent cadres inscrits c'est une machine scientifique et alors que opposition ngeen nekk et un niveau de déploiement dans <laughs> waaw amuñu lu ñu leen jox au contraire ñooy jël seen xaalis di ko dugal donc mm. parti boobu dafa war a ubbeeku à ces ressources là beneen affaire bu mu am ñoo xamante ne ñoo ŋànk parti bi ci structure bi chaque jour chaque week ñuy jël seen xaalis seen maigre moyen di implanter ay cellules tey dañu war ubbi le bureau politique à ces gens ñuy représenter leen directement dans le bureau politique national ce qui n'est pas le cas dans le comité de pilotage provisoire bu ñu téye ba léegi mais PASTEF dafa war a ubbeeku aussi aux alliés yi nga xamante ils viennent dans la fusion donc organigramme bu ñuy waaj a dem c'est dañu dem ba gis ne que les piliers institutionnels du parti tels qu'ils ressortent des textes statuts ak règlement intérieur mënatuñoo téye le projet il faut que ñu créer des piliers plus solides pour une conquête tranquille du pouvoir et un exercice en tout cas par rapport ñun lu ñu bëgg a fu mu nekk nii gis ngeen ne depuis quelque temps on a initié les universités du Mont Cap def nañ ci la première session avec l'économie numérique ñu ngi waajal une deuxième session avec le modèle économique avec des sommités qui son même à l'extérieur du parti pourquoi parce que dañu war a euh, dañu war a tëggaat programme bi mm. améliorer ko def mise en jour bi gën ko densifier ba balaa ñuy egg deux mille euh, deux mille euh, deux mille vingt neuf deux mille vingt quatre mhm. le candidat bu mu nar a doon avant ñu koy xam sax déjà son programme il est déjà ok il est déjà euh, Momar il nous reste une dizaine de minutes xam naa un peu moins que temps mais xam nga moom dañoo buggoon dugg un peu sur ses ambitions politiques est-ce que moom am na fu muy kii mais avant moom ma wax si yow c'est la même question est-ce que le président Ousmane Sonko dégg nañu Barthélémy Diaz daal di ne dafa ne ko bu mu demander la ko mu nekk euh, euh, Ziguinchor euh, est-ce que am ngeen visé c'est votre leader est-ce que quand même il est temps à six mois des élections am na localité boo leen ko dencal pour mu dem foofu avant ñuy wax ci yow sa engagement à Ndiaganiao Bar Barthélemy nag ku baax la ku baax la te ñun jàpp nañ ne yéene nañu jàmm bu dee conseil président Ousmane Sonko ah. te xam na tamit defa am parti bu mu jiite mu am nu muy doxee foog naa biir nekk doy na ci dëgg sinon bu génnee rek day andi yoo xamante ne à l'échelle du parti au lieu mu dimbali président Ousmane Sonko da koy yàqal parce que tey bu fekkoon ne usman dafa nar a appliquer conseil boobu entre guillemets bu ko defee day wax ne doxewul coobare boppam doxewul euh, recommandation parti bi waaye une voie extérieure moo ko ko imposé alors que am na leneen loo xamante ne wun mu ngi ci biir mënuñu ko wax ci biir ci kaw ci biir plateau li ci des nag mooy Pastef njëkkuñu fi juddu kam am na partie yoo xam te ne fii lañ leen fekk mais tey ñu ngi diirante ak ñoom mbagg kon loolu en tout humilité am na am na xam-xam su bu tuuti bu ko ak bu ko jëmal war nañ ko mën a wóolu ci ci ci nu muy tojee bopp dina xam ah. maintenant Ousmane présention ko ci boppam on verra le moment venu ce qu'il va faire mm. ñu ngi déglu ñëpp ñu ngi déglu lu ne ci biir parti bi ak ci biti parti bi mais foog naa ne euh, bu bu ñu eggee ci foo xamante ne foofu lañ ko nar a waxee dinañ wax lu leer sénégalais xam ne fii lañuy ñuy jëm. fi ngeen di jëm euh, c'est l'occasion déjà xam nga moom euh, Ndiaga Niang mooy sa fief électoral. Mhm. parce que maa ngi wax léegi nii lycée Demba Diop la jànge et tout ça te gis nañu avant ñuy wax politique politicienne wala politique tout court coowu ndengaleer bi coowu suuf si yow dañ la see njëkk a dégg temps yi dégg nga am na si sax am na benn encore benn lettre bu mu yónnee le président Macky Sall yëpp. noo gisaatee rebondissement yi nga xam ne moo am si coow suuf si à Ndengler. Euh, li xew Ndengler man je me demande ñi ñi ñi ñu jiite naka la ñuy naka la ñuy xalaatee boo liiree la euh, communiqué gouvernement bi daaw. ci mhm. pareille période dañu doon wax ne egg si nañ ci nawet béykat yi lii lañ yaakaar pour dund. kon nañu leen bàyyi ñu bay ren fii nawet gi di jeex dinañ trouver une solution. Mhm. ñu tolluwaat ci même période bi. même élément yi taxawaat préfet Mbour monsieur Mor jël benn arrêté ne deux cent vingt cinq hectares yi cent cinquante hectares yi nga xamante ne moom la Babacar Ngom moom mën na ci continuer def lu ko neex maanaam mën na continuer di fa ut loo xamante ne moomeelu boppam la waaye béykatu ndengaleer yi fi ñu bayoon daaw di ci dund ba toll nii duñ fa tegaat tànk loolu du loo xamante ne dañ koy accepté te à partir di week-end bii nii man dinaa dem Ndengeleer. Hmm. dinaa dem Ndengeleer te dinaa wax euh, mais parent waajal leen nawet bi ngeen delloowaat foofu ngeen dem béy ji te dinaa woo waa Njagañaaw yëpp ñu bàyyi suñu divergence politique de côté xam ne ku attaqué benn béykat jël suufam ci xoqantal ak ci doole teg ko ci malhonnêteté boo xamante ne kenn mënu ko nettali. ñun ñëpp ñoo war a sentir menacé par rapport ak cette pratique oligarchique ab d'accaparement des terres des paysan loolu mënul continuer lu mu jur nag ñaar responsable ñoo ci am principal bi sax benn la mooy loolu yëpp mu ngi am parce que président Macky de fa signé un décret jël suufas béykat yi du domaine national dugal ko dans le domaine privé jox ko keneen koo xamante ne mbéy rek la fa nar a def nooy jëlee alalu béykat jox ko beneen béykat parce que juste bii nii ci bu mu génnee lu mu wax mooy sama doom da doon ànd ak président Macky Sall ci campagne électorale bi parce que dañ koy par rapport ak soutien bu mu la jox loolu mënul continuer léegi nag bu leen neexee ñu rey leen bu leen neexee ñu ñu ñu ñu ñu ñu tëj leen bu leen neexee ñu def lu ñu nekk mais seen responsabilité du sedd cest dire ñun mënuñu bàyyi le préfet chaque fin du mois ñu jox ko carburant jox ko otom jox ko salaire jox ko avantage am yëpp mu toog di dundal njabootam mu toog ci birom bu sedd dem signer benn benn arrêté ne waa Ndengaleer doo leen fa béy Babacar Ngom du fa béy waaye les 150 hectares Babacar Ngom mën na continuer defagum lu ko neex bu ko defee dama ko dama ko envoyé message ne ko yow sa arrêté bii nii est-ce que arrêté la pour Babacar Ngom ndax ñu béy béykat yi en attendant ñu trouver solution ñu béy fa comme ni ñu fa béyee daaw mu ne ma non ça concerne toutes les parties mu ne ko est-ce que yow da nga prévoir ren gii nii béykat yi bu ñu béyulee lan lañ nar a dundee ah. mu ne patt pataaral te avant affaire Ndingler bi de éclater man fekkee naa benn réunion boo xamante ne moom moo ko présider dafa yoo xamante ne man wóoluwuma ko benn yoon. wóoluwu le non il joue un jeu sale te fii laa koy waxee parce que daf ñu woo woo ñëpp ba mu des le maire de Sindia woo ñëpp ba mu des le sous-préfet de Sindia dem wooy ji yeneen maire environnant yëpp ak yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen service état yu fa yu nekk ci département bi on n'a pas pu mettre le maire. de Sindia et le sous-préfet de Sindia face à ses responsabilités tey gii nii nii suñu suñu suñu benn parent yu fa demoon dem nañu euh, góobi ji barewuñu woon six personnes la woon ñoom ñu del dem jëli ay ay ay une partie des habitants de Djilakh yu ñu manipuler parce que du waa Djilakh yëpp ñoo ànd ci manipulation boobu andi leen ci tool yi andi ñaari camion vidéo bi sax dinaa ko partager sama page xam naa ne boo moytul Facebook dina ko censurer pour sénégalais yi gis ci bu muy boole waa Jilax ak waa Ndingler te ñuy benn askan wi. mais dafa mel ni non je termine mm-hmm. mu ngi ko commencé ci conférence de presse sam lu mu waxoon bu ma namee delloo suuf si ma delloo ko waa Jilax ñu ma ko joxoon. Mm-hmm. mais bi présent bi bi bi euh, Aly Ngouille Ndiaye génne arrêté am ne waa waa béykat yi mën nañ béy kenn ci waa Jilax demoo fa béy. ñi fa dem béy ji ñoom moom exact parce que ku ne xam nga sa tracé. terre ci 80 hectares yi nekk moom waa waa Ndingler ñoom ñoo ko moom quoi. mais mais mais lii nga xam ni moom nga waajal ni di nga dem Ndingler di nga jël waa Ndiaga Ndiaye ngeen dem tout ça defe naa ci confrontation la jëm te defe naa artu bii nga artu ñu ngi ñaan yàlla. Mm. ñi ko war a dégg dégg ko. bu ñu la mënee agir au niveau du préfet agir au niveau du préfet. Mm-hmm. ba doo leen yegg foofu sinon confrontation mooy am beneen bi am itam aussi mooy dëgg la il faut que ñu xool naka la ñuy régler mbiru Ndingler leer même. ña nga xam ne ñoo fa cosaanoo am fa ay suuf daan fa bay te di dunde bay mën a bay waaye itam beneen dimension bi aussi il faut ñu wax ku wax lii wax la ca des am na fi ay doom yu jóge bitim réew ñu xàllal leen ay suuf su bari jox leen ñu ciy liggéey boo demee Saint-Louis am na fa boo demee sax jilax boobu foofu noonu am na fa ancien kii bi Réba fañ defoon Réba ab italien lañ ko jox moo koy gérer te suñu doomu réew bu bëggee jël suuf pour liggéey ci ñu lànk donc il faut que nag. équilibre boobu am lan ngay proposé déjà c'est bien. il ngay proposé cest à ñu fexe ba nga xam ni. Uh-huh. nit boo xam ni cosaan nga ci réew mi uh-huh. bëgg liggéey. ñu jël suuf jox la ko nga mën a liggéey. lan ngay proposé waaye du tax ñu xañ aussi baykat de fa nekk seen suuf. xam nga lu xew déjà il faut être nit bu bu bu bu doyluwul mooy mel ni Babacar Ngom ñu jox la cent cinquante hectares cent cinquante hectares quoi. doyloowoo ko continuer di jël di foqati ci ay néew gi doole 80 hectares yoo ci teg bu amoon luy luy daw ci xolam ci yërmande day def ni euh, euh, kii jaax euh, bu seeni ko defu ko mais li ci gën a garaaw mooy le mode opératoire parce que seen suuf si jox nañ mu ko ñu ne suuf si jaayul ablewul luyeewul mu dem ci cinquante hectares am di béy pendant des années ndiki te mu ngi lijjanti papier ba papier bi sotti mu xëy ne leen suuf seen suuf si jox nañ ko am naa titre foncier ñëw teg gendarmerie loolu bokk na ci bu dee dañuy jox ay nit tamit du noonu lañ leen di joxe kundo bi rey sa maam boo gisee lu ñuul daw bu ñu jëlee plan REVA dañu jël une partie mais rek ñu une partie des <laughs> terres jël une partie des terres des population eh. li ñu leen ci diggoon defuñu ko mhm. kon ñooñu bu ñu ñëwee bëgg jëlaat lu ñu desee dañuy bañ ba tëdd lang tëdd ci suuf parce que bu ñu deful loolu du ñu lekk dañuy dee ci biir kër yi ci seen dignité xiif lu muy rey ci àdduna kenn xamul nu mu toll il faut regarder les chiffres dans le monde xiif ba dee wala xiif ba amee ci feebar yoo xamante ne fa ngay jaaree dee maintenant président de la république dafa jël xaalis wax naa ko fi sànq jox ay sénégalais yu seen xam-xam màcc ci wàllu suuf ñu tëgal ko la commission de réforme foncière bu créé woon ay titres fonciers jox paysans yi ci seen suuf soosu uh-huh. nu mu defal Babacar Ngom uh-huh. kon paysans yooyu dem soit dem ci banque soit bu ñu bëggee jaay jaay malgré le régime des des terres du domaine national buy interdire la vente mais dans le monde rural yi ñaa ngi jaay c'est pas une question de bitim réew ak biir réew man bu waa ji bu waa Ndengeleer jaayoon seen suuf si man du ma ci addu parce que am na ñuy jaay seen suuf man adduuma ci boo jógee sanjara di dem Ndiaganiao dangay gis ay tool yu bëri ñu ngi leen di commencé clôturer parce que bari na ñi fay dem di jënd suuf parce que agri agriculture dafa commencé attirer ni ñi nit ñi xam ne ëllëgu suuf si lii la. Mm-hmm. mais ñëw foqati d'une façon aussi malhonnête parce que tu connais les arcanes de l'administration li nga mën a def ak sa doole. <laughs> foqati ci suufu jàmbur ne noonu doon nga leen bàyyi ñu dee. ci ah. xiif. Oh, waaw euh, monsieur Faye gis nga foofu le temps bi mais nga nga terminé waale le mot de la fin. par rapport ak loolu ak ñaari baat sa ambition politique à Diaganiao da nga bëgg nekk foofu maire. Ah, ami xam nga <laughs> mënuma déclaré mënuma déclaré mënuma déclaré fii ci plateau candidature parce que ba fu ñu toll nii dafa am fu ñu tënk suñu baas bi te ñu am discipline bu tax ñu may ñu loolu di ñu déglu semaine bii balaa muy jeex dinañ ci tenir ay réunion yu war a mën a tax ku nekk xam nooy taxawee bu boobaa bu ñu laajtewaatee dinañ ci ñëwaat mais ambition bi Pastef am mm-hmm. dem à la conquête de toutes les municipalités mm-hmm. fépp la ko am y compris à Ndiaganiao y compris à Ndiaganiao Momar mhm. wax naa ngeen bàyyi xel rek ni mhm. élection locale dafa am particularité ban coefficient personnel u Ousmane Sonko kenn nattabtalewu ko waaye coefficient personnel ab leader mhm. bokkul ak taxawaay bu parti am nag ci gox-goxaan yi. ci gox-goxaan yi ci leadership local yi. d'accord est-ce que loolu bàyyi ngeen ko xel ci li ñu dëgmal. Ah. loolu d'accord naa ci yow. parce que parti xam nga bu ñu ñëwee ne anti système. ñi bari dugg ci biir parti mooy ñu dul woon politique. ñooñu il faut ñu am patience bu tax ñu bàyyi leen ñu construire seen envergure mm-hmm. politique mm-hmm. nit du judd tey dox tey il faut ñu am foo xamante ne foofu lañ jaar mm-hmm. en attendant aussi ci fépp fu ñuy dem foo xamante ne partie bi amu fa force euh, de leadership bu tax ñu gagné on sera intelligent dans les alliances parce que lu gën am solo mooy lu ñu commencé mooy opposition bi conquérir le maximum de municipalités yu nekk main mains du pouvoir pour préparer leur défaite en 2024. leer na nañu moom la yokk nañ le temps donc dañuy gaaw tàggu euh, téléspectateurs yi vraiment pour ne pas abuser sur le temps et puis jox leen daje mercredi prochain avec un autre invité